assalamualaikum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu njitu kër gi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér ñu ngi nuyu personnel bi aussi maa ngi nuyu cheikh mbacke ndiaye si pigin ak soxna masala nuyu soxna gan si gëy maa ngi nuyu cheikh thiaw ak soxna am amit dëggay nuyu moon ndiaye sapeur à la retraite amon 5 maa ngi nuyu monsieur le maire madi ba si géejawaay di nuyu Asphal bu Alamine si yëmbal transporteur maa ngi nuyu monsieur Traoré di directeur au centre horticole bu Cambérène ñu ngi nuyu le commissaire de l'ambassade ak colonel tey dañu ñëw si laaj laaj nag defe naa ni moom daanaa fa si émission ni laaj moom loo ko laaj mu jox la ko laaj muy mbir mu doy di légume bu doy nag laaj dafay purifier le sang dafay setal deret mooy vertu bu njëkk dañ koy utiliser dafa ay trop si acné moy bouton yu dijji génn ci kanam xale jigéen surtout bu nekk période règle ñun toll ci puberté dala gën ko gaaw si wàcce cholestérol te it dafay dindi les kayo manam dret jooju di woy da fay dindi koy prévenir même dafa euh antiseptique bu doy war sax antiseptique nag mooy lu gaaw la si wàllu xeetu doomu jàngoro muy microbe euh, basi yu choléra gaaw na si moo tax bu nit amee choléra daggateel laaj rek jox ko mu lekk si saa si dafay bàyyi les staphylocoque doomu jàng bi ñuy wax staphylocoque muy benn xeetu bactérie bu doy waar di jur yenn xeetu infection yi daf koy nettoyer dafa baax si doomu bactérie bi ñuy wax jàngal bi ñuy wax salmonelle salmonelle boobu dafay gaaw da dafay faagagal gaaw na si les agents de la dysenterie mooy doomu jàngoro yi joxe dysenterie mooy biiru tañi daf koy indi si yaram information des voies aériennes maanaam ñi nga xam ne seen li ko dale fii ngelaw li jaar oesophage bi dafay lakk des fois ba si pharynx beeg yooyu larynx soo ko dee jël daf dimbali ba loolu loolu dañ moo tax ñu koy faje wàllu socc surtout ak grippe lu si baax a baax a baax la bu ngeen gisee garab bi ñuy fajee grippe toujours naa la boole sa laaj looloo tax lu doy waar la si wàllu soj ak grippe wàllu bronchite muy beneen xeetu feebar buy laal xëtër yi aussi te mënuloog tuuti asthme du baax na si lool ak li ñuy wax njàmbataan muy coqueluche hmm? loolu lu si am solo la muy saxat su tar soosu muy àndal ay étude nag ñu ngi si di saytu ay maninam si wàllu cancer yenn xeetu cancer yi wàllu diabète ak li ñuy wax saturnisme saturnisme nag mooy accumulation de plomb dans l'organisme xam nga plomb bu dajoo sa yaram bu yàggee poison lay doon laaj bi nag gis nañ ni dafay wàññi plomb boobu sa yaram kon lu mat a bàyyi xel la dafa am fer nag am vitamine moo tax muy faj anime aussi soo manqué de di laaj daf lay dimbali dimbali xamuñu ko mais laaj dafa am fer bu dee hypertension am nga ñaari possibilité booy booy faj tension benn mooy da ngay jël gos bi nga dag tas ko dindi si juróom juróomi doom mooy gélule yi benn ñaar ñett ñeent juróom nga jël juróom yi feje ko ba mu sew loolu la ñuy wax gélule su ko defee nga xooj ko si kaasu ndox booy tëdd nga koy xooj bàyyi ko mu fanaan boo xëyee nga segg ko boo amee tension sax bu yéegee boo jëlee benn si gélule yi rek benn bi nga dindi ko ba xool xoolli ko ba set nga dugal ko sa ginnaaw fi ngay demee cabine doo tegee waxtu après boo xoolee tension day wàcc loolu jar na bàyyi xel dina dina ay caillots ci deret moo tax boo amee tension bu taw wàcc dañ naa la jëlal ñett doomu laaj ñett doomu limon ñett doomu jinjeer nga haché ko def ko ci litre ndox bu tàng bàyyi mu seet nga koy jël par genn wàll kaas saa yoo lekkee ci kàttan yàlla lu tension bi yéeg yi da koy wàcc ma digal naa ko ñoo xam ne sax daanaka jëlatuñ wàññi nañ garabu tubaab yi ñoon jël ndax seen tension commencé di stable mais dama leen rek boole leen ñaari moo gën su dee wàllu jabet la mën nga jël juróomi doomu laaj maanaam da ngay jël benn ñaar ñett ñeent juróom gélule yi ngay jël juróom su ko defee nga daggate ko moom sew jël nga bu persi nga boole leen def ko si litre ndox bu tàng bàyyi mu sedd nga segg ko di ko naan par diggu kaas boo ndekkee boo añ loolu day wàcc suukar si yaram loolu lu mat a bàyyi bàyyi xel la bu dee da am taab taab jëlal si laaj bi rek benn géline nga dëgg dëbb ko ba moo ko taw euh, taf ko si taab bi si kàttanu yàlla néew bu mën a doon dafay dafay daal dañ su dee grippe la nag da jël laaj bi ñett géline nga bu xampoole tuuti jar boole ko lemon ak jinjar su ko defee nag nga dakkate ko ba mu sew def ko si litre ndox tàng bàyyi ba sedd nga segg ko di ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo añ loolu moom lu grippe bi bari bari sa yaram dana ko dindi même boo dee saxat sax soo bàyyi sax boo ko defee mu daj si kàttanu yàlla kon loolu moom la ñu indoon si laaj tey danañ si dellusiwaat si lu yaatoo yaatoo yaatoo leen wax ne émission bi ma njëkk def si laaj fi mu nekk nii daanaka dépassé na un million deux cent mille vues ñu koy xool si internet bi ëpp na million ak ñetti téeméeri junni si ñu ko xoolagul kon nga xam ne nit ñi fonk nañ surtout léegi fonk nañ laaj aussi. question yi ñaar la waaw ki daal neena na moom dafay sëy amagul doom mu ngi bëgg a def fukki at sëy bi seet nañ ay trompam mu butugaam dara sukku kusi defal nañ ko échographie amul kyste amul fibrom amul disob ovarienne amul endométriose amul infection amul polype nañ ko nag na sa jëkkër ñëw mais jëkkër ji moo nangul dem ndax ne ko man dara jotuma ndax maa ngi sëy normal mooy xamal nag góor ñi leen kàttan am kàttan ak mën a am doom jotewuñ dara am na ñoo xam ne ñu ngi am kàttan di sëy te mënuñoo am doom ndax seen ndox baaxul ndox mooy normal pour nit mën a am doom am na ñoo xam ne ñu ngi am doom seen kàttan àggul fa mu war ndax ndox mee baax bu ndox mee baaxee mën nga am doom kon dimbali leen jigéen ñi ngeen dem ñu seet leen man bari ñoo xam ne seen jëkkër laa fa ñu soog am doom dem leen ñu xool leen góor day feebar ndox day feebar walax njaan yi dañ ne la maanaam bu ñu ko doon natt tey soo jëlee ndoxu say boobu muy walax njaan euh, maniw bi millilitre li ñuy wax millilitre maanaam litre boo ko xaajee junni yoon toq boobu fay ne muy millilitre benn bu ne dafa am lu tolloog ñaar fukki million say walax bu manqué benn doom day jafe bu fekkee sax am nga vingt millions te daj dox ba ñuy dox yéex ñuy astinospermie soo am doom su manqué ñu ngay oligospermie maanaam loolu vingt millions doo am doom su fekkee dañuy génn ak doole mais suñu génnee fa ñuy taxaw la ñuy taxaw dañuy immobile la sa ëpp doo mën am doom bu dee li ñuy wax nécrospermie bu sévère ba indi azoospermie maanaam koo xam ne sa ndox amul wala am doom mais dañuy yàlla fajul leen dem leen def spermogramme spermogramme mooy dañ leen natt seen ndox ndoxu say man yi bu xool fu mu toll bu dee dafa manqué rek te sévèrul bu la joxee garab si kàttu yàlla mu yéeg bu fekkee nag dafa dem ba nekkul sëriñ bi sévère ba mu jigee azospé maanaam dafa des soit néew na wala daanaka dara newu fa da ngay def ñu wax une échographie testiculaire ñu rechercher soit une varicocèle wala ñu rechercher une atrophie hypotrophie testiculaire ndax donj yi mën naa dellu mooy li gën a jafee faj nag si wàllu doom mais boo amee chance ba loolu dalu la testicule yi na am varicocèle bu ñu la opéré si kàttu yàlla la fajee nga am doom. ki ma mujj faj bu yàggul asus prime la amoon dara newu foon fi ne doom jàng jabar jàng ne mi ngi si lu jee juróom-benn weeru ëmb kon góorgóorlu leen te moom dañu yaakaar ne dootul am doom ndax ndoxam amuloon wala jaan te ma nga ne te maatam la doon déplacé wu ba fii Dakar di faju si ne leen muy jaral sacrifice dimbali leen jigéen ñi sonn nañ ñaareel question bi ci daal nee na ballonnement moo ko sonal ballonnement bi def ngelaw di ëff def gaz reenu ŋaam ngay wut reenu ŋaam jël ñetti reenu ŋaam rek yu toll nii nga daggate ko ba mu sew baxal ko si litre ndox 10 nga denc ko di ko naan par genn wàll kaas kaasul ndékki boo ndékki boo año si kàttanu yàlla léegi nga am ñun tàggu fii dañ jox naan beneen jotaay jërëjëf